Bataille, tey édition spéciale Magal Touba 2023 129e édition bu Magal de Touba ñi ngi fii si élec santé bu Touba nous gis ñi médecins yi ñi di xeetali ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi depuis bi nga xamante ni moom la màggal gi tero ba léegi du ñu sori euh, ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay euh, maa Mourtine. Euh, waa ñu ngi fi garage Dakar à Elite Santé de Touba. ñu ngi jéem a gérer organisation peut-être bon mun naa wax ne affaire bi xaw naa métti tuuti parce que c'est la première fois ñu ñëw fi Eh, ren ji moy suñu première couverture fi ci garage Dakar euh moy garage bu bes bi wa mais nak affaire bi xawna metti touti parce que nit ñi bon tamaguñu antenne bi mais alhamdoulillah parce que bon ñu ngi voilà ñun ñepp ngi commencé di daw mais bon ñu ngi sante yalla côté bobu bu baax. Euh, non ñun mom chaque année dañ koy def mais chaque année itam dañuy yok suñu antenne. parce que mun naa wax ni peut-être suñu année yëpp passé amuñu woon lu mat euh, six antennes te ren ji dem nañ ba am euh, six ba sept antennes waaw loolu moom ñu ngi koy santee Serigne Touba bu baax si dëkk bu sell bi ak seen présence lan la mën a yokk wala mu wàññi ko ci wàllu euh, màggal gi maanaam mën naa wax ni du wàññi dara ci màggal gi mais dina yokk nit ñi parce que mun naa wax ni maanaam ni foo xam. li nga ni dafa doon bett ci wàllu wér waaw waaw parce que jàpp naa ni fépp foo xam ne nit ñi dañ fay tase daje maanaam mun naa wax ni peut-être feebar du fa du fa jóge te boo feebaree gis ñoo xam ni maanaam dañ lay jàppale ci sa wér yaram yaakaar naa loolu ak tawféex la te ñoo xam ne laajuñu la dërëm dañuy ñëw di def euh, ngir Serigne Touba waaw.

après ma jël ko yu duggal ko ci ambulance bi accompagner ko ba hôpital après ñoo jël ko en charge wa mais consultation gratuite ni ni lan ngeen di gën a visiter si euh ñu ñu gëna visiter nak bon euh, bokku na ci ay jaare ay constipation parce que japp na ni fièvre yoy moy yu gëna am ki surtout jaare bi suñu mbokk peul yi nga xamni bon ñoon dañu xawa ki kii amna affaire di leen di xawa sonal ngeen baal ma tuuti si mbokk peul yi wa ay céphalée ay algie diffuse ay kii soj surtout feebaru soj bi am nga poussière bi tam bon am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ko allergie euh, bu ñu nekkee si foo xam ni maanaam poussière bi dafa xaw a bëri tuuti bon ñoom affaire day leen di xaw a sonal surtout ñoo xam ne dañoo am amaat euh, kii comment dirais-je euh, j'ai la no nom asthme asthmatique yi bon surtout ñooñu te jël nañ suñu matuwaay si loolu yëpp jaajëfal kon dañuy jëlaat euh, beneen élément rek mu wax ñu loolu la euh, si ñu ngi lay nuyu dégg nañ seen responsable bi li mu wax naka ngeen waajale màggalu Touba édition 2023. man maa ngi tudd euh, Awa Goudia bi. waaw non mënuñu ne am na jafe-jafe parce que comme ni koy defee chaque année rek waaw dañuy préparer suñu lépp balaa ñuy ñëw donc euh, bu ñu ñëwee ba fii waaw dañuy xam la ñu it indi def suñu liggéey waaw amul dara loo xamante ne dina am ay jafe-jafe ndax lépp dañ koy préparer ba pare. communiquer ak askan parce que ku xam tey sénégalais yi baaxoowuñu di dem seet seen wàllu wérgu yaram ban sensibilisation ngeen teg pour mën leen convaincre rawatina ci dëkk bu sell bi ah, bu ñu ñëwee xam nga ñun boo ñëwee si dëkk boo gisee maanaam nu dëkk bi di doxee yow noonu nga war a mën a doxee patient yi da ngay ñëw nga naxtaan ak ñoom ne leen ah boo ñëwee tamit nga tegale loo xamante ne loolu moo leer comme booy xam nga booy fat nit ki war nga ko mën a ne lii ak lii conséquence bi lii ak lii ak lii la donc ñun bu bu ñu bu bu ñu jàkkaarloog malade ko expliquer loo xamante ni tey jii moom bu demee sax dina mën a woo keneen mu mën a ñëwaat faju si comme moom. mais bu ñu nee consultation dafa ñëw seet si. waaw ndax da ngeen ciy boole mayaale ko ay waaw dañ siy boole mayaale ko ay garab ngeen maye fii. am nañu ay paracétamol am nañu ay garabu saan am nañu ay sirop pour xale yi. Mm-hmm. waaw garab yu bëri am nañ ko fi macha allah. waaw ku fi ko même ku gaañu sax boo ñëwee fi dañ la faj gratuite perfusion yëpp gratuite la waaw. merci beaucoup. donc je me nomme M. Francis Dacosta euh, je suis le moniteur superviseur en santé à l'institut supérieur Elis Santé de Pikine Guédiawaye et de Kermassar. donc euh, nous sommes là voilà l'équipe de l'institut composée de l'Institut de Guédiawaye Kermassar, alors, donc nous sommes là aujourd'hui à Touba, plus précisément dans le quartier euh, Darou Daru Tanzit, chez le grand marabout euh, Mbake. Donc nous sommes là pour assurer, n'est-ce pas, la sécurité sur le secteur de la santé. Et qui dit la santé dit l'hygiène. Donc nous sommes là pour sécuriser, n'est-ce pas, les pèlerins qui viennent de différentes zones, d'accord Alors, dans ce cas, le directeur nous a donné des médicaments, n'est-ce pas, pour assurer, n'est-ce pas, la couverture, n'est-ce pas, pour assurer les pèlerins, non seulement les pèlerins, mais aussi les habitants, n'est-ce pas, du quartier. Je étudiante l'école Santé. waaw comme ni ko président waxee rek alhamdulilah màggal bi kii nañ ko ci jàmm dëgg la amoon nañ fi ay malaat yu kii mais yàlla def nañ jot nañ leen faj comme niñ koy waxee rek màggal moom boo ñëwee des fois da ngay indi fii ay fatigue mag yooyu yoon bi day metti ñu si bëri bu ñëwee vitamine C la ñuy laaj pour mën a calmer seen douleur ak yooyu mag yi tamit am na ñoo xamante ne duñu supporter kii yu gara kii yu yëg-yëg yu kii coono ak yooyu dañuy Nous l'accueil est chaleureux et permanent d'ailleurs euh, le le samedi on est arrivé ici vers 3 heures du matin et malgré le retard il nous a accueillis n'est-ce pas il nous a donné à manger n'est-ce pas il nous a donné aussi de l'eau n'est-ce pas donc tout ça c'est un une collaboration très très longtemps donc nous félicitons vraiment aussi les disciples qui sont actifs d'accord, qui sont là aussi pour euh, non seulement, euh, non seulement le, les, les, pèlerins, mais aussi toutes les personnes qui sont présentes ici. Nous avons accueilli notre auto en retard. Nous avons ay 3 heures lañ fi yegg si mais alhamdulilah sëriñ bi toppatoo nañu bu baax a baax defarañ ñu rek ñu ngi koy remercier bu baax nag di ñaan yàlla may ko gudd fan ak wër di ñaan aussi déwén ñu fekke ko at yi bari bëri bu ñewé mu ñi dalal parce que ba ñewé dalal nañu bu baax vraiment fi moom dara manké wu fi